asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 8 novembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb li ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey si ajuma ji fi mu xëy ñëw wala kay tey ki mu xëy seqal waxtaan mooy Mbaye Guèye premier tigre de Fass mbay nag la mu xëy di wax daal ci diggante mu loo lay wax ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé la mu xam ne nag nee na daal li leer ba leer léegi ni ko laay li mu war a def mooy sauver ki nga xam ne nii day moo di Ama Baldé ak Modou loo combat bi daal la laaj ne ko na ko jéem a sauver ndax nag nekk na combat boo xam ne nii day soxla nañ ko te làmb dëgg-dëgg la te làmb mënu koo dàq dana tamit fi mu nekk nii daal li leer ba leer sax Ama Baldé war nañ ko sax war a mën a fay lu romb wala boog war na koo fay quatre-vingt-dix millions loolu mooy waxe ki nga xam ne nii day moo di Mbaye Guèye ki nga xam ne nii di Modou moom la ca Mbaye Guèye wax ne ne Modou Lo nekk na mbër moo xam ne nii day mu jafe la de ay mbiram moom yombul mën nga koo sóoru waaye balaa nga koo daan di nga daj lu mburu dajul ci ab taal mbay Guèye mooy wax loolu am na leneen loo xam ne tamit xëy na di ko wax ba tey ci combat boobu rek nee li Ama Baldé nag li tax wala li tax li muy wax mu di ko wax wala boog yokklu bi ne li muy wane mooy rek dafa respecté li nga xam ne moo di combat bi wala mu wek bu baax a baax adversaire bi loolu mooy gis-gisu ki nga xam ne moo di mbay gi mu mel ni ki nag ñoom mbër yooyu ñu tudd ay VIP moom seeni mbir fi mu nekk ni taq na suuf ngir am ay combat moo tax nag yëglikaay bi def ci ab jàngat mu mel ni ki nag ñi nga xam ne ñooy bayru làmb yi moom ñu ngay accuser ñi nga xam ne ñoo di mbër yu mag yi di xam ne daal ñoom VIP problème bi am ci làmb ji yëpp ba làmb ji taxaw kenn defu ko ku ñoom loolu li loolu tey la bayër yi xëy di ko wax ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb tafaatin moom mu mel ni ki lool a ñu wax daa mel ni nangu na ko ndax nag jàpp na ne ñoom fi mu nii li war a def mooy mooy sacrifié wu financièrement maanaam daal wàññikoon seen ay kase ngir nag mën a jàkkaarloo bëre ndax loolu mooy li nga xam ne nii suñ ko defulee mbir yi du dem Aline Gueye moom ñu xam ko di ab promoteur moom itam mu ngay wax ne na fi mu nekk nii day combat yu mag yi nga xam ne ni moom la ñuy wax combat VIP ne nee na bu ñu sàgganee ci leer ba leer ci maanaam daal mu ñàkkatee am ca jëm ndax nag li nga xam ne ni day moom la ñuy gis muy am fi mu nekk nii ci làmb ji du loo xam ne ni lu mën a continuer la kii moom yoon wi mu nekk di mu ci continuer yëglikaay bi di sunu làmb ne na est-ce que du moom moo nar a far wala mu fomp boog rongoñi waa Fass muy Serigne Ndiaye numéro de mu mel ni ki fi mu nekk nii daal yoon wi mu tegee moo tax sunu lam ne bu ci continuer day nar naa nekk ki nga xam ne bu waa Fass doon jooy wala seen rongoñ di tuuru mooy ki nga xam ne nii day moo ko nar a fer wala mu fomp ko ba mu set wecc wecc waaye jamono jooje nag Serigne Ndiaye mu mag mu mu ngi koy dànkaafu ngir nag la nga xam ne nii moo daal ki nga xam ne moo di ki nga xam ne mooy lagros ak ñu mel ni ki ñooñu na ko jéem a moytu bu baax a baax a baax ndax nag loo ci mën a dégg daal ah, maanaam daal olof da koy wax ay moom mën ngaa jëkke mu neex lool waaye nag xool fa ngay mujje ji tamit dafa jara bàyyi xel keneen koo xam ne nii moom ay mbiram yëglikaay bi ñëw na ci mooy ki nga xam ne nii day moom moo di kona ba dëkk fa nga xam ne moo di tëngéej moom nag la muy wax ci autorité yi tëngéej daal nee na leen stade bi nga xam ne mooy Ngalandou Diouf nañ ko ubbi jox ko waa lamb ji ñu di ci bëre ndax nag lamb dafa war di am tëngéej comme ni muy amee fépp fu ne ka nga xam ne nag soriwul foofu di tëngéej muy Sidi Jaxati promoteur dëkk ca Cees ca Cees sunu Lamb xamal nañu ne day ab saison mu ngi ko fas yéene nag ubbi fi nga xam ne moo di Mbour le 24 novembre combat ba mu tëgg nag mooy Zil bu Sali ak ki nga xam ne ni day moom mooy waa Zil bu Sali daal la tëgg combat ak ki nga waaw ak adversaire ba nga xam ne moom la war a bëreel fa nga xam ne ni moom moo di ca Mbour le 24 yëglikaay bi ba tey moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu kon daal leer ba leer moom sunu làmb tey xëy na ñëw ci lu baree baree baree bëri leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci mooy ki nga xam ne nii dey moom mooy Aziz Ndiaye yëglikaay bi ne li leer ba leer day la mu dàq ci ay nag wala la mu yóbbu ci ay nag ca Tiwaawoon ci gàmmu gii moom bëri na ba yegg ci lool sunu làmb ba tey moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ñii moom seeni mbir li leer ba leer jàppal ne day dox defle ko muy waa école de lutte Landing Jàmme leer ba leer daal yëglikaay bi na na ñetti defet am nañu ko am benn victoire mu mel ni ki kon ñeenti combat yi ñu jot moom li leer ba leer daal lañ ca jëlee ci ay ndam bëriwut benn lañ ca am ak ñetti defet keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ni ne na li leer ba leer moom mooy président des promoteurs muy Pape Abdou Fall sunu lam ne na nag gisee su ko kere ca CNC ak ay bët mu jëlub dat kon nag Pape Abdou xëy na daa am lu muy xaar mu mel ni ki daal tey moom ah loolu mooy li nga xam ne moo fi ñëw ci yëglikaay bi nga xam ne nii wala yëglikaay yi nga xam ne nii ñooy wax ci wàllum làmb kon mbokk yi nga xam ne ñooñu yéen ñuy suivre ci Leewtoo di déglu seen revue de l'arène bi wala di ko seetaan waaw loolu mooy li fi ñëwoon tey ci yëglekaay ñu ñëw nag ci du sax jàngat mais mën nañ ko sax tuddee jàngat parce tey ñu ngi fi nga xam ne mooy Tiwaawoon yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye ngeen xam ko bu baax a baax dalal ñu dalal bi nag li ko waral mooy moom moo ñu wax rek ñu ñëw dal këram sàkku ko ci ñun avant gàmmu gi moo tax it bu ñu ñëwee ñu dal këram ndax it nag xam nga nit ku nekk rek bu la joxee cër li rafet mooy nga delloo ko ko yàgg maar ñuy profité du nuyu ki ñi nga xam ne ñooy mbokku taalibi seex yëpp di nuyu jullit yëpp rawatina nag mbër yi nga xam ne ay taalibi seex lañ ku mel ni Gris Bordeaux ñu ngi koy nuyu di nuyu Modou Lo parce que ñoom ñëpp ci kër gi la bokk xam nga Lac de Guiers 2 suñu limee dinañ juum ñi ci xam ak ñi ci xamul ñëpp ki ma toogal nag mooy Daouda xam nga dama ko daan toog ak Ndeye Goumba Fall ñuy jàngat mais tey Daouda parce que Tiwaawoon lañ ne may nuyu Ndeye Goumba Fall di nuyu waa Leewtoo yëpp Daouda maa ngi lay nuyu di la ziar Daouda bu Bawal Production waaw jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp te am na mbégte tàbbiwaat ci yéen di daje ak ndax gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen defar ci lamb ji muy liggéey bu rafet nag macha allah te ñoom opportunité pour ñu wax ak yéen kon ferte la tey ñun ñu fi nekk fii gaa teewoon kër Abdou Aziz Ndiaye comme ni nga ko waxee rek ndax it ku yokku da nga wàññi te moom bokk na ci nga xam ne. dafa yokk quoi te it moo ñu ko ji moo tax it gis nga gàmmu suba la mais ñu danoo profité ñëw fi rek ngir sargal ko di nuyu ñu nga ànd ñëpp ba ci kanam incha allah. Euh, Daouda li ma lay laaj comme de l'arène lañ doon def journal bi ñëw na ci combat yi nga xam ne ni làmb ji léegi ni mu dëgëre ñaa ngi dégg VIP wala sax li ñu jëkk li ñu jëkke mooy mbay gi moo xëy di wax ne que Luc Nicolaï na sauvé Ama Baldé ak Modou Lo maanaam na jox Ama kon li mu koy laaj pour mu dëgg combat bi yow loolu noo gisee loolu. non nan la ko joxe ci ay conditions. maanaam prix bi xëy na la wax mu nangu ko. mais am na prix yoo xam gars yi mënatuñ ko Babacar ci làmb nga nekk nan waxante dëgg gis nga ama maa ngi koy conseillé maa ngi ko nuyu sama waay maa ngi ko nuyu baax ak stafam war na mën a xoolaat boppam parce que dafa année blanche daaw ren na mooy gis nga tuut te teew moo gën li ngay xaar ñu ne mi ngi ñëw te ñëwagut. daal tuut te teew njëgu baam. moo gën a teew gis nga li ñu lijjanti dara dara suteeku ci. dañoo xalaat rek ñun yaakaar ne bu ñëwee dana am ñooñ ba léegi d'accord gun ci làmb ji nekk xam na li xew yaakaar ne dana ñëw bu ñëwee dana sotti mais ba tey ñu ngi négociation dara sottigul man nag li li li teew laa mën a nangu laa jël lii nga xam ne dañ ma koo dig waaw te te moo amoon na lu teew de. aman na lu teew loo xam ne dara du ko dindi waaw. su ma doon moom ma yor wala ma ko wala ma jege ko ci loolu laa jël. ci loolu ngay jël waaw ba ngay gis leneen. ba may gis leneen mooy loon parce que lamb lamb ay minute la rek kenn ku ne da nga fi ne sa morom ne fi kenn ne fi kenn ne fi te Ama Baldé dafa bokk ci keramu bu jógee waxuma Pikine mais Sénégal lay jóg kon donc année balaa sam daaw sax dala naqari dama naqari parce que sar mu làmb la kon donc li ci li ko dese mooy estafam nan wax gën a waxtaanaat bàyyi ko mu maa ngi rappel rek yi yëkk bi mu weer roi te daa wàññi kasam ngir bëree mën naa li ay combat combat yoo xam ne day tiggi ci xaalisam jox waa ji pour mu mën a bëri mais rëccu ko tey te Ama toll na foofu fi mu ne dafa war a ne a ah, ratu gumba la war a na yor. bañ a daal. ratu gumba foo la toll. xàmmee janj ak joor gone la am te day am doole te mën naa bëri am na fi lan moo des. mu jël combat yi pour yow. mooy jaadu. kon daal ànd nga ci mu jël Modou Lo ci liñ ko fay. non d'accord mooy yoon eh xam nga nag Babacar dañuy waxtaan. du mën a Babacar laa soxla def sorti di classe ban yaakaar na loolu mënul nekk mu dem ba mën a nekk dama ko jël moom moo def sorti ne Modou Lo laa soxla te muy lu wér ñoo xam ñëpp ne combat Modou Lo Modou Lo Ama Baldé ñëpp di ko coow pour ko joxe avance ak lu mën ni xew du ko war a jël ak lu mën di xew du ko war a jël parce que itam liñ ko fay dootu ko am ci benn ko bu dul Modou Lo rek ko mën am mënu ko am ci benn adversaire kon jaadu na mu jël ko am na su jaadu mu jël ko waaw léegi su ma ñëwee tamit ci beneen côté bi gars yi ne nañu VIP wala bayiru làmb ji maanaam promoteur yeeg ñi ciy dugal seen xaalis nañu VIP ñoom ñoo yàq làmb ji parce que nanguwu ñoo bëre loolu yow noo ko gisee. non bu nax seen bopp xaalis moo amut Babacar gémmiñ wax waxu dëgg wax fenn xaalis moo amut fan ko doon jëlee. ak fan ko doon jëlee ak ña ko doon joxe ñoo téye seen loxo. buñ ko buñ ko joxee wala ñu wala wala mu am fa kon dana bëri mais xaalis bi sponsor yi doon ñëw di jàppale làmb ñoo téye seen loxo ci benn côté mais VIP bari ñu ngi coow ni mais am na ci ñoo ay quelque temps laal rek koo jox avance jël ko ndax boobu bu ko bañee du ko du ko amaat ku ko jox amul ku ko jox xaalis amu fi kun da a jël fi nekk parce que ñi ko doon joxe ba léegi doo téye seen loxo kon VIP jaadu na fi tam ñu wàññi seen kaso wàññi ko bu baax baax parce que prix bi ñu doon bëri de. déedéet xam nga li ma la wax. kon daaw de kontaan nañ ci yow. nga jaajëf Babacar mais maa ngi leen nuyu baax namm a la nag. mën naa la baax di nuyu waa staff Baol production bépp nag di nuyu Assane di gaay nuyu gaay Baol famille lamb ñëpp président Abdou Fall ñoom ñëpp gaay yi ñu ngi ziar ñëpp di nuyu waat Aziz comme ni nga ko waxee nga moom dañoo yàgg 2004 ba léegi ñoo nekk yàlla dogal na bët ba mu doon xoolee ba léegi moom la ñuy xool te it euh, chaque jour ñu ngi déggante ci ay jàppale ci ay conseil kon kooku jaar na ñëw bisam sargal ko waa sargal waa Leewtoo yëpp nag di ñaan di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. amin kookoy Daouda yàgg maar noonu la demee waaye comme dañoo nekk nag Tivaouane bi dëkk bu tedd maa ngi dégg yaakaar naa ne li am solo mooy que rek. ñu ñaanal ki nga xam ne nii mooy xalifa bi Serigne Ababacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam te wéral cëram defal ko njabootu si daasi Malick yëpp mais defal ko tamit bépp jullit di ziar waa Thiénaba si gàmmu gi waa Medina Baye waa Léona Niassène waa njaasaan xam nga bépp këru diine rek waa Touba duñu ñu fàtte kenn ñëpp ñaanal lañ leen di wax ne que rek comme li ñu waxoon rek Sénégal moom benn bopp la te mu ne su koo xar ñaar yaa ngi dégg li ma li am solo a wekk suñu kilifa jox gën leen a ñaanal ñu gudd fante te wér parce que nag olof a ko wax de yenu jàpp caa gën a wóor mag du danga am talu nit ki boo amee aw ab gattax da nga ciy téye jàpp ci mu dëgër nga sàmm ko moo gën di xaar yat wuñ la dig te gisagoo ci comme ni ko kii waxee léegi suñu kilifa yi la ñu am yàlla nañu fi yàgg te defe naa ku dugg Tiwaawoon di nga xam ne liggéeyal yàlla rek mooy li wóor guddi gi nag guddi yonente bi la sallallahu alayhi wa te yàlla nee na Moustapha lu ma bind yaa tax luy tooy di wow di dox ak di yëngu rek bu amee maanaam ci darajaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko bindee yàlla itam ba mu koy tagg nag taggu ko ci ndey taggu ko ci baay mais ci jikko la ko tagge kon nag nañu fexee defar suñu ay jikko yéeneente jàmm ku ci li ne ci yow ci sa xol ci lu baax nga yéene ko sa morom bët bi ngay xool sa bopp ci lu baax ci ak yëg-yëg nga am njort boobu ci sa morom bu ko defee rek Sénégal dina jëm kanam te am na lu olof yi di wax mar ñu togg togg gi yàquñu ko mais xam nga ñu ko yàq ña ko tàngalaat ñoo ko tàngal ba mu bëgg a xooñ waaye ka togg moom yàqul dara mag ñi yàquñu dara kon ñun daal nañu nekk ay taali bi di jëfe ndigal tey bàyyi tere loolu moo am solo di balu ñëpp ak